Sénégal nuyu naa ku nekk di sellal Sénégal nuyu naa ku nekk di sellal ma la kennal li tax ma jug gën a sellal Sénégal nuyu naa ku nekk di sellal ma la kennal li tax ma jug gëna sellal duma mer lu dul ma gis ku di gàkkal muridisme ak sos ko daamata kennal ku fi laal diine boo yeboo na daw xel bu ma lay songu gaynde sax du la fanqal ku fi laal diine boo yeboona daw xel bu ma lay songu gaynde sax du la fanqal bala kennal solub njaxas du ma ñàngal këlum bay fal ci sa image du ma taaral yor itam ñetti njañ jigoor sunu waajal ma di ñaan ñépp bamba neng ko ñetti njañ sunu waajal ma di ko di kennal yoritam ñetti ñañ di góor sunu waajal ma di ñaan ñépp bamba nan ko di kenn